asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 3 janvier 2019 ñu ñëw ak ci yëgle kaay yi moo xam sunu làmb la la tribune record wala boog Leewtoo TV wala Leewtoo point net fu nekk daal ay xibaar tey xëy na fa bu dee yëglekaay bi di sunu làmb la moom li mu xëyee lenn la maanaam ki nga xam ne nii daal moo di Gris Bordeaux ñu naan ko le troisième tigre de fas moom la xëy seqal tey waxtaan wu yaatoo yaatu mu mel ni ki Gris nag moom wax na ba ne xaaw ci yëglekaay bi nga xam ne moo di sunu làmb la mu xam ne nag nee na leer ba leer daal ci lu yàggatul dara combat moom des na ko taxawal moom Gris Bordeaux moo xëy tey di wax loolu am na leneen loo xam ne tamit ñëw na wax ci muy ki nga xam ne nii mooy diggante mag booy Niang nee na Boy Niang day farceur la Gris daal loolu la jàppe ki nga xam ne nii moom moo di booy Niang waaye am na keneen koo xam ne tamit nee na ko moom bu bëggee am combat faw mu jël koom yi bàyyi ko maanaam ranger ko teg ko ci ginnaaw bàyyi dóori bi muy ki nga xam ne ni moom moo di forsa waaye keneen koo xam ne tamit jàpp na ne potentiel la ci biir écrit bi moom te xale la boo xam ne bu ko sàmmee dana doon ëllëg dara ci làmb mooy Serigne Ndiaye numéro 2 rak jëgiri 2 tamit jàpp na ne yaakaar ne moom mën naa amaat taxawaay bu baax ci lii nga xam ne moo di làmb ji moom Gris Bordeaux moo xëy tey di wax waaye leneen loo xam ne tamit wax na ca yëngu-yëngu yi ci biir écrit Fass mu ne moom day li leer ba daal ak lees ko mën a waxal ak lu mën a xew itam pour pourtant day moom kon bu loolu amoon ci lu ñu koy waxal ci digganteem ak diw ak diw kon xanaa du woo ki nga xam ne moo di Balla juuf wala booy Nar ndax jàpp na ne ñooñu tamit ay xaritam lañu moom Gris Bordeaux waaye am na leneen loo xam tamit wax na ca ne na mbër moom boo bëggee def carrière bu baax ne na faw leen nga di ko def moom maanaam daal di ñëw entraînement à l'heure di entraîner bu ko defee sa carrière moom mënees naa xaar mu baax waaye nag li leer ba leer daal ba tey ñëw nañ ci dàq ga nga xam ne dàq nañ ko Papa Sow ci écurie ba moom Gris Bordeaux tamit ñëw na ca mbir mu moom mbir mu mel noonu waaye leneen loo xam ne tamit wax na ci wala am na ñu ci wax am na ñoo xam ne nag danañ daal comme que Papa Sow léegi jóge na fa daal daa mel ni Forza nag léegi fi mu nekk nii mooy deuxième ba nekk ca ginnaaw Gris Bordeaux maanaam daal léegi moo topp ca ñaari place ba ginnaaw Papa Sow dem na yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw séq waxtaan ak Gris mu mel ni ki nag Papa Sow moom tamit am na ñeneen ñoo xam ne daal wala yeneen yëglikaay yoo xam ne ñëw nañ ci moom moo xam yëglikaay bi di record la wala la tribune la tribune moom la mu xam ne moom ne na ndax day dugg fa nga xam ne moo di rek énergie ànd ak ñoom wala boog day créer écrit wu lool loola laaj la boo xam ne yëglikaay bi moo xëy tey samp ko moom laa tirbin bu dee record la moom la mu xëy indi moom tamit mooy li leer ba leer daal ci mbirum Papa moom a wax na ca maanaam daal ñetti mbir yi nga xam ne nii war na tax fi mu nekk ni mu décidé maanaam toog face wala boog dem carrément loolu daal yëglikaay bi ñëw na ci ki nga xam ne moo di Papa Sow ba tey yëglikaay boobu nga xam ne moo di record tamit ñëw na ci ay wax wala boog koo xam ne nii doomi parcelle la muy garga mboose garga nag la mu xamle daal digganteem ak Malick Niang moom la xamle ne daal bu ko kenn wax wax garga daal nee na waxi Malick Niang moom waxu ko tey suba waxi noppi moom garga mboosa loola mooy li nga xam ne nii daal moom moo di ay waxam ci yëglikaay bi nga xam ne moo di record waaye ba tey bu nu continuer ci yëglikaay boobu nga xam ne moo di record wala ñu dem fa nga xam ne boog mooy ca sunu làmb sunu làmb moom la mu xëy wan ñu wala fa nga xam ne nii demoon na fa mooy fa nga xam ne mooy école di Balla Gaye mu mel ni ki nag foofa daal daa mel ni xale ya moom Balla Gaye numéro 2 ak les 2 ñu leen di surveiller bu baax a baax ñuy entraîner xam nag coach tamit mu nga woon taxaw di Lamine Golo kaay bi moo xëy tey ñëw wax ñu ko keneen koo xam ne moom adversaire bañ koy wax nee na bu ko ko kenn waxati ndax nag nekkut ci ay palam tey suba waxi noppi muy double moteur bu rëbës moom daal nee na maama Lamine bu lamsaar bëriwul ak moom tey suba waxi noppi nee na li leer ba leer daal fi mu nekk nii adversaire yu gën a tàng maama Lamine ëpp ko kot ak niveau nee na ñooñu lay bëreel te ñoo war a ñëw bëri ak moom waaye waxi maama Lamine moom double moteur nee na bu ko ko kenn wax tey suba waxi noppi loolu mooy wax ki nga xam ne moo di double moteur loo xam ne nii moom nar naa am muy combat bu nar a tàng ci diggante ki nga xam ne moom moo di bébé bismi ak ka nga xam ne moo di Ada fas la on janvier lay am ci stadium Iba Mar Diop mu mel ni ki nag jàkkaarloo nañ bërki dem ca kunun waaye daal mbir ma moom tàngoon na jër ñoom ñaar ku nekk daal yaa ngay baxal muy tàng nga jëmale ko ci sa morom waaye leneen loo xam ne tamit dañ cay dem muy ki nga xam ne nii moom moo di Yaxya Jóob Yékini record a ñëw wax ñu ne moom daal ginnaaw stade Caroline Faye bañ ba ne kenn du fa tëgg làmb drapeau sur le tas dong moo fa am Yékini nag léegi daal réussir na loolu maanaam décroché na fa nga xam ne mooy Caroline Faye ngir nag fa soo yéenee tëgg làmbi simple ji nga xam ne nii moom la war a def ci mois de janvier bi nga xam ne moom lañ jëm muy dëppoog le 18 janvier mu teg fa lu toll ci misub ñetti millions loolu mooy li nga xam ne nii yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di ko wax wax ba tey lambi simple jooju itam dañ cay des ñaara ngi ñoo xam ne ni moom bés bu ñu laalanteetee ci lamb simple bëre boo sàgganee tamadu leen ëpp ay buum muy ki nga xam ne nii moo di Doudou Sané bu joof yor ak Ibou Ndiaye bu joof yor mu mel ni ki nag daal loolu moom tere nañ leen ko seen seen nag daal mu ngi leen di surveiller bu baax a baax a mel ni ñaar ñooñu moom fi mu ni moom boo bëggee dégg-dégg moom bëre ci lambi simple jàpp ne dañ koy def bu ñuy daje di bëre waaye leneen loo xam tamit day am ca joof yor di commencer le 3 ba le 6 janvier muy li nga xam ne nii mooy ëpp mis bu toll ci fukki nag ak benn ak trois 330 mille francs yoo xam ne daal teg nañ ko fa mu mel ni ki kon daal joof yor tamit nar naa yëngu bu baax a baax a baax ci weekend bi nga xam ne moom la ñu jëm waaye li leer ba leer weekend bi itam nar naa tàng jër ndax nag samedi suba jii moom ki nga xam ne nii moo di idaali ñing moo indi agogo ak ki nga xam ne nii moom moo di Thiély bu dakaar Plateau lañ ca dàqal daal mooy seenu xarit ba nga xam ne moom lañ tuddee drapeau ba muy Serigne Cissé mu Serigne kër si moom lañ duppee drapeau ba suba ndax liiru jaan lañ ko tuddee woon comme ne na Serigne Cissé xaritam la mu delloo ko drapeau ba loolu nag mooy li wolof yi di xam naa di wax rek ku la safoote nga faale ko loolu la liiru defal Serigne Cissé kon daal suba stadium Iba Mar Diop la bu leen ko jaawale waaye tey nag àjjuma la moom xanaa am nañ droit jéggulu ñëpp ñaanal ñëpp jàmm di wax kani senegal yal na fi yàlla sotti jàmm mu saawaan baawaan def ko ci àddina bi yëpp ci barke nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi leen nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àlloon si maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay di la delloo ziar di nuyu internet du Leewtoo ah. nekk rek si bi comme ni ñu ko waxee à chaque fois wala chaque jour ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm titi ko sàkku si ñoom ñëpp. Amin Babacar teel na ñëw ak sunu laam sunu laam dafa xëy am waxtaan bu yaatu ak le troisième tigre de Fass muy Gris Bordeaux Gris Bordeaux daal mi ngi xamal di di di xamal supporter am ne léegi combat taxaw mais nag xamul nag ban adversaire la lañ koy proposé nee nag Boy Niang c'est un farce farceur nag Babacar soo ko déggee mooy maanaam genre comédien yooyu noonu nee na Forza nee na su bëggee am combat nay wàññi dóor yi nee na xëy na dóor yi moo tax adversaire yi bëri di ko daw nee na Serigne Ndiaye moom am na potentiel bu mag a mag bu mën a aussi bi laa mujj Babacar. sunu làmb moom Gris Bordeaux wax fa lu baree baree bari ci waxtaan mu seex ak ñoom ah ñu koy nuyu di ko ziar kanta lu mu wax nag ci combat am léegi mu taxaw waaw c'est normal war na mën a am komba parce tamit yaakaar naa ne dafa def année blanche daaw kon ren yaakaar naa war na fexe bëree ñun nag ñu ngi ñaan mu am combat di ko ñaanal képp kuy mbër parce que tamit mbër moom booy bëree mbër nga waaye boo toogee bëree woo moom day xaw metti kon gir yaakaar na war na mën am combat kantaa lu mu wax tamit si diggante ak Boy Niang ñoom ñaar xam naa fi mu nekk nii ci classante lañ toll quoi ndax Boy Niang kera classe na ko ne moom bu demee Sénégal fi mu ne du rang moom giri maanaam troisième âge la ko jàppee giri xam naa loolu tax mu jàpp ne farceur la xam naa sax dinañ seetaan benn vidéo boo xam ne waxtaan naa ci ak moom ci yu mel noonu mu ngi sànni booy ña ngi ay xeer forsa itam li mu wax ne dóore bee tax mënta am combat man xëy na da rek da koy tagg rek waaye yaakaaru mu ne loolu la xëy na kay problème mu adversaire la yu demee ni ki noonu parce que tamit lamb ji moom képp ku ñu jox ko euh, avance nga jël ko booy ñëw nàmm nga say loxo buñ la dóoree da ngay fayu te dëkk dóore dañ ne moom amoon na waaye ba fayu amee la dëkk ba tas bëre la ñu wax ngi dégg ñu ngi ñaan daal mbër yépp am combat Serigne Ndiaye itam loolu mu wax tamit defe naa loolu ñu ko wax bari na waaw lool moom yaakaar naa ne bokk na ci tey ay xale yoo xam ne nii làmb bàyyi na leen xel te yaakaar naa suñ ci jëmbatee fula am nañ ci cër yaa ngi dégg wax na ci lu bare bari digganteem ak Balla Diouf ak Boy Niang naar ak bu bu nekkee buri day am faas ak moom ñu ko ciy tudd ak yooyu te réewul ne na ñooñu ay xaritam lañ day diggante ak ñoom téléphone te neen sax neenam su amee stress booy naa booy naar lay woo wala Balla Diouf pour nu retaan loo ko parce que moom ñooñu nag dañoo yàgg xam nga diggante gi rek Balla moom yaakaar naa ne loolu longue histoire la loolu moom yaakaar naa ne ñoom ñaar seen diggante dafa yàgg trop des fois nag àddina moo mel noo xam ne nii waaw dañuy dañuy gaañante bëñ ak làmmiñ kon yooyu day day am mais yaakaar naa ñoom ñaar tey ak fi ñu toll ci wàllu expérience ak at yaakaar naa tey am na lu bëree bëri loo xam ne nii romb nañ ko diggante mag Boy Naar itam ku ne gis na Gris Bordeaux ni Boy Naar daan sonne ci làmb kon yaakaar naa ne ñaar ñooñu moom euh, bu ne ay nitam dëgg lañu yaakaar naa weddi ko dina jafe. Euh, ki nga xam ne aussi mooy Pambay nekk ci écurie euh, écurie Fass moom nee na depuis bu Papa Sow demee ba léegi dina am benn chamboulement maanaam dina am jaxasoo bu rëy ci maan ci wàllum chef bi nee na Forza Gris Bordeaux moo jiitu Forza topp si waaw loolu de bu dee Papa Sow dem na moom yaakaar na ne Forza actuellement mooy numéro 2 bi. waaw mooy dauphin bi ah loolu nag c'est normal yaakaar naa ne làmb moo am noonu écrit bu nekk rek am na tête de file am na ko ci topp am na ko ci waaye itam li li li ci garaaw mooy ngeen di ko dund rek dund bi daal moo moo ko jarul pour man yéen ñëpp jàpp leen ne yéen a bokk écrit bi ay licence ngeen yor xam nga bokk nday bokk bàyyi kii fayeeku million kii fayeeku cent mille ñëpp jàppalante parce que àddina moom lu kenn man ñaara ko ko dàq waaw Babacar nag nu dem fi nga xam ne mooy géejewaay si école de lutte Balla Gaye Balla Gaye nee ñu nag entraînement yi bu mu commencé bu mu dooree ba léegi ki nga xam ne mooy Balla Gaye le roi. Euh, Euh, le lion de Guédiawaye le l'ancien roi des arènes ak les de ñoom ñooy superviser entraînement ginnaaw bu sunu papa euh, Balla tawatee waaw dañoo delloo naar bi xoromam rek parce que ñoom lu ñu doon foofu lañ ko doon ci école CES parce que fa lañ leen tàggate booba yaakaar naa ne père Balla Gaye ndura leen gëmoon ak ña ko jege ñoon waaye booba kenn gëmuloon les deux wala Balla Gaye deux mu encadré leen ba tey yaakaar naa ne ku ci nekk tey lamb am na lu mu la jural muy lees 2 muy Balla Gaye 2 kon moom père Balla Gaye Ndour bu demee ba yàlla def mu xaw a wéradi ñoom ñu ñëw di taxawu entraînement ya yaakaar naa loolu la mooy leen war te yooyu itam la ñuy ci ñoom parce que nit ku nekk di fàtte di fàttaliku fi nga jaaroon dafa baax parce que da ngay toll moment boo xam ne nii kaasu fonde da lay boo naan boo amee nag ku la ko jox ba nga naan ko ba sa biir fees yaakaar naa bis bu la yàlla dimbalee a fonde bële sauvé woon na la démb defe naa mooy li ñuy def loolu rafet la ñun dañ koy rafetlu ndax man moom su ma sañoon sama gémmiñ gi lu baax a ciy génn su ma sañoon sama bët yi lu baax lay xool loolu sax moo am solo Babacar suñu jógee nag suñu laam nañ dem fi nga xam ne mooy record record dafa xëy dalal ki nga xam ne mooy Garga moom daal lu ma gis nee na Malick daal nekkatul ordre du jour maanaam tourné na page Malick Niang Babacar waaw ñoom ñaar dañoo yàgg sànnen tey xeer depuis daaw ba ren garga ak Malick Niang ku ne yaa ngi yor say kaba ko dóor sa morom Malick Niang boo ko waxee wax naa fi daaw mu ne bëriwul ak garga parce ragal garga tey ne na moom tourné na page mu mel ni ñoom ñaar loo ci mën a dégg nag nañ jàpp nay adversaire la ñu ñoom ñaar loolu laa leen di wax de garga mboose yaa ngi Malick Niang lamb boole na leen de war ngeen mën a laale de lu leer laa leen wax mbër nag ku mu neex am nga droit ne du ma bëri ak diw loolu garga waxit kenn Euh, ci ci ngi ci ci lancé bu am solo daaw gis nga jil bi mu daan Moussa nekk fi mu nekk nii ci lancé bu baax Malick Niang nag yàlla def na mu bëre ay combat am benn defet ci carrière am toog at yu bëri bëriwul yaakaar naa actuellement fi mu nekk nii bëgg na bëre. journal aussi mu ngi ne xaral xamal ne ginnaaw Caroline Faye bu nga ko defaree ba léegi benn langue mos na ko fa tëgg à part drapeau chef ba fi amoon daaw nee ñu nag ubbil nañ ko ki nga xam ne mooy Yaxya Diop Yékini bu mu tëgg fa grade lutam le 18 janvier bii Babacar waaw loolu de alhamdulilah la wax rek yaakaar naa itam stade yi nekk Sénégal stade yëpp omnisport la waaw defe naa ne euh, defe naa stade bu ci ne dañ fay football di fa bëri di fa ànd bala ko volet ko affaire est-ce ngi dégg kon yaakaar naa làmb itam amul stade bu ñu ko war a mën a interdire xanaa kay ñu tabax ab stade bii moom pour football kese la su keroogee moom ku ne da ngay xam ne kat lii du pour yow yaa ngi dégg leneen noonu lay demee noon lay deme ndax fa nga xam ne nii moom moo di fa nga xam ne mooy Dakar Arena ba ca jam ñaajo dee su fa dem naan dañ fa organiser làmb parce que xel nangu ko mais Caroline Faye nag bu ñu fa organiser lu toll ni drapeau résultat kon defe fa benn mbapat ci benn jour yàqul lu bëri te ka fay def itam yaakaar naa ne mérito na lu ne ci Sénégal ndax défendre na équipe nationale à travers le monde ak à travers sax l'Afrique la muy Yaxya Jóob Yékini yaakaar naa fédération Niger ba ku ne saf xel war na caa dem kon defe naa tey su bàyyee làmb en tant que mbër ñëwaat duggaat ci làmb di tëgg di jëf xaalisam defe naa stade bu mu laaj rek wares na ko koo mën a jox bu méngoog nekk la muy def dëppoon ak stade ba. Babacar suñu jógee nag fi nga xam ne mooy record nañuy dem si nga xam ne mooy tribune tribune moom dafa xëy samp laaj ne est-ce que Papa Sow dem fekk ki nga xam ne mooy Modou Lo si Rock Énergie wala boog day créer écurie lu ci mën a xew daal loo ci mën a dégg mooy mu fekki Modou Lo wala mu créé écurie lu ci ne valable na pour moom yaa ngi dégg parce que tamit bu dee fekki Modou Lo diggante ak Modou Lo mu nekk nii ku ne xam na li ci ne jàmm ak rattaxaay dañ leen di ñaanal yàlla sàmmal leen loolu ndax lépp lu jag rek sunu borom bi la li ci des mooy créé écurie itam yaakaar naa am na si droit parce que am na expérience bi te yaakaar naa itam ñi ko wër mën na am am nañu expérience jàppale ko ci loolu waaye loo ci mën di dégg daal euh, comme la ma laay wax rek fa mu nekkoon nag fa mu jëm ak wala la muy waaj a sañc lu ci mën a doon rek yàlla na ku jàmm lal daal waaw. Babacar nag suñu jógee nag fi nga xam ne mooy tribune nañu dem si Leewtoo point net ak Leewtoo TV dem demoon nañu benn point de presse boo xam ne bu bu neexoon <laughs> diggante Ouzin Production ak euh, ñi nga xam ne mooy journaliste yeeg amateurs yi ñoom ñëpp daal pëccoxoo moom daal def na euh, dafa am benn projet 300 mbër def tournoi de lutte simple 300 mbër mu tuddee ko 300 euh, lutteurs si la ñu bokk. si la ñu bokk donc normalement nee na février lay commencé dina ko tëgg si quatre départements Dakar Rufisque Pikine ak Guédiawaye Babacar. waaw loolu am na solo Ouzin Production ñu saluer loolu mu def parce que tamit ku jéemul doo def dara. yaa ngi dégg am na initiative wu def loolu pour jàppale yenn xale yi nga xam ne amuñu sensu bëree te bëgg nañoo bëree loolu yaakaar naa projet bu am solo la waaw 300 litres yi ci la ñu bokk ah wax ne que loolu tamit noonu loolu mu ci xalaat initier ko ak ñi ko siy jàppale yépp yàlla na ko yàlla dimbali ba mu réussir ko parce que tamit vraiment am na solo trop am na ay xale yoo xam ne soxla nañu bëree kon yaakaar naa mois de février boobu te itam yaakaar naa ne am yoo xam ne sax ay mbir yu mag yoo xam ne bëgg na leen a tëgg pour ñu bëri tamit ci journée yooyu nga xam ne da ko fas yéene di muy projet boo xam ne daal am na solo te itam te lu yokk làmb la rek parce que itam comme lu ñuy wax rek xam nga mbir moom boo ci bokkee boo yokkul rek yaa wàññi te comme moom doomu sénégalais la di dund làmb itam yaakaar naa loolu mu ñëw indi ko am na solo trop ñu ko ñaan mu réussir ko à 100 pour cent Babacar loolu am na solo si kàddu yoon leen tàggoo lay jox dig daje leen di incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama yaay merci nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Astan ne déjà Brahma chéri Khadija Diallo di nuyu ki nga xam ne mooy Khoudia Seck chéri euh, A Seck depuis itali di ki nga xam ne mooy mbay seet di euh, ki nga xam ne mooy Abdou Gueye euh, depuis les États-Unis Baye Fallou Diamaguène Papa Sita di ki nga xam ni mooy. Aïda Diouf ak Aïcha Faye yaayu paate baabakat nag comme koy yóbbante ak la ki nga xam ne mooy xujja say chéri euh, as euh, Seck moom mu ngi lay mi ngi lay nuyu bu baax nee na daal yu daal da nga koy da koy da nga dindi stress am daal ah soxna xujja maa ngi lay ziyaare yow tamit di la ñaanal jàmm chéri as Seck di nuyu sa borom kër as waaw wax ne addinaa mu solo mer mu bëri ñàkk la ku mer karamel yàlla lool lañ loolu la taasukat ba waxoon ah waaw mer mu bëri moom amul njariñ te ñun ñu ngi sant suñu borom maanaam amuñu lu ne gaañ mais ñu ngi sant yàlla waaw maanaam daal bu ñu sañoon kenn du mer donte nag mer ci doomu bi la bokk waaye warul di dëkk yaa ngi dégg ndax mënul ñàkk dañ ne kuy mer ku dul mer doo nit waaye kuy mer dëkk ca tamit doo nit kon nag moo tax daal des fois ñuy bëgg ngeen di kontaan moo tax ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu ñoom Cheikh Bass Kër Massar Abdoulaye mbay xam nga Lamine Konaté Zo Diouf gaa yëpp ñu ngi nii dañuy kii dañuy commentaire Cheikh Diagne ak Zal Ndoy tuuti Yaay Sarr ah. ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu abu Aboubacry Camara ah gars yi Sall Sall Xaadim gars yi ak ki nga xam ne nii moom moo di Sidi Traoré Sidi itam yàgg nay commentaire vidéo yi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu képp ku ñu suivre rek à travers le monde. borom yére bi nag waaw Saliou itam du ko fàtte borom Zik FM le meilleur animateur parmi les meilleurs maa ngi koy nuyu sama rak sama doomu ndey di ko nuyu bu baax a baax di nuyu Ndiogu Mbaye Ngouda Amina moom tam maa ngi parce que soppe la. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Pape Diouf l'homme de génération consciente tamit moom it soppee la maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu ki nga xam ne nii nag mooy Rimka Couture moom mooy jaar fi soo gisee yére bi ma koy solako sol parce que nit ñi dañ ne dafa rafet trop kon Rimka mention spéciale Séeri Nday borom Touba Sandaga taalibi Sëñ Abdou Karim Sénégal daal yàlla na fi yàlla def jàmm Iba kenn du yow Iba bàyyi Alima Ndione bu Zik FM maa ngi koy nuyu bu baax waaw borom añ ñi Iba waa bëgg na añ trop te man ko maa na itam Serigne naa ba maa ngi koy nuyu li ko wax ne jasneer bi nice na yàgg maar yàlla na ñëpp am jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allah